yéen yàlla xëy ci xasida yi waxuma tawfeex waaye di ngeen am xaas tawfeex ju ànd ak xaas la sant ci yàlla bu baax te bu ci kenn mag secret baa secret baa ngoo fonkal sëñ moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci jege sëñ moo gën a gaaw ci am ngërëmal sëñ bi moo gën a gaaw ci defaru doomu aadama. auzu billah bismillah kon ñi daal di jubluwaat ci geneen xasida insha allahu sëriñ bi ne aonsu dana muslu billahi ci kàttanug yàlla mina seytaane ci saytaani arajim kadakuñ jàmm wali sérmandi yàlla mu ne maa ngi muslu man sëñ Tuuba ci kàttanug yàlla ci doole gi yàlla mu musal ma ci saytaane mi nga xam ne ku naqaree mucc la ku dëgër bopp la ndax sa soo waxee aonsu billahi mi saytaan rajim rek saytaane daw na ak nu mu mën di dawee nag saa yoo ko waxee rek daw na moo tax boo ne axonsu bi baa goog li muy jëriñ mooy mu ngi mel ni bu ne goo xam ne dafa jaaxle bim jaaxle di daw di daw ba seen aw mag jëmali mag ma daw ba ca mag ma dugg ci ñaari tànk yi gis nga kaaraange goog muy am ci waxtu muy dugg ci biit ñaari tànki mag yi te ba noppi la tax mooy jaaxle tax ma dugg ci wala nga ne gune goo xam ne dafa daw ba dugg ci ron tànk yaayam wala pappam gis nga xale nu ñuy def nii ndax de bu ñu xasee dugg foofu am nañ kaaraange kenn du leen mën a dara même boo leen dàqoon bu ñu raw nañ su ko defee nag soo waxee a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim day ni yàlla bu amoon tànk kottu nga tànk ya ah, ndax ku yàlla la mën a lor déedéet ci kàttanu yàlla ci seytaane mi nga xam moom ci kuréelu jinni yi la bokkoon kaana minal jinni fa fas amri rabbihi ci jinni yi la bokkoon waaye alquran ne dafa génn topp génn topp mooy lan mooy kuñ sant te sañ laa sant ba noppi nga bañ kooku mooy génn topp génn topp lu waral ak rëy moo ko ndam lu ñuy wax ndamoo wàllu askan walla ndamoo kii samay woy juru góor wala wu jigéen ndax li tax rëy gi yëpp lu ko waral mooy bind gi ñu ko bind ci safara te muy leer ñi bind aadama ci bant muy lëndëm moo taxoon mu ne kon kay yàlla dangaa war a wax ne ban bii di ban bu lëndëm na ñëw sujootal ma man mi nga xam ne maay iblis nga bind ma ci jàllangu safara te muy safara dafa leer xaala ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin keroog boobu nag ba ko yàlla digalee mu bañ a sujoot ngir rëye ko dab saa borom dàq ko ci bépp yërmandem qaala faxruj minha fa innaka rajimun saa borom tegal ko ci noko na nga xam ne sama yar moom heure bu ne mi ngi topp sa kaw di la dóor wa inna alayka lahnati ila yawmi diini ba keroog ci fu ne ba lii ki du mucc ndax heure bu ne nit a ngi def loo xam iblis la ci yuuxoo am na ñoo xam ne saa su iblis yuuxoo mën nañ koo dégg jëxaram waaye am na ñoo xam ne bu ñu waxee auzu billaahi mina shaytaani rajiim rek iblis yuuxu ko duñ ko am na ñu yàlla may kës fu iblis lañ koy gis waaw saa su yuuxoo rek dañuy dégg kàddu mu ngoog iblis na ko ah, yàlla comme noonu la demee te heure bu ne sa yaram mbugal mu ngi ma topp qaala rabbi fa anzirnii ilaa yawmi yub'asuun dama bëggoon nag a muñandiku ma bu ma faatagum ba kera ngay dekkal sa jàmm yàlla na ko ah loolu kay dañ la ko defal qaala rabbi fa arsilni ilaa jami yupansun qaala fa innaka minal munsirin la ko yàlla wax ku ñuy muñandiku nga ba waxtu woowu ilaa yawmil waqtil maxluum muy waxtu wu ñu mooy waxtu wu yàlla di dekkal jaam waxtu woowu lañ koy doog ko faat ay malaaka ñoo koy jàppo faat ko yeew ko ceen ko tabal ko safar kon mu ngoog mooy yàqkat boo xam ne moom amul faatu moom bi yàlla sàkkee doomu aadama aadama ba noppi am na koo yàqal koo jax-jaxal mbindeef bu ne la lay yàqal moo tudd iblis moo xam muy sa bakkan moo xam muy sa bànneex moo xam muy jongoma yi lu lay yàqal ci na sa diggante sa borom tam moo tudd iblis mbokkam iblis la njabootam la ci taxoon di leeral defe naa ne dana bëri luñ ci leeral sëriñ bi ne moom yàlla waxaat xafisani wattul na ma boppam wana jaani wana jaani muccal na ma xablu ci lu jiitu wa asamani te mu musal ma baax lu ci ganaaw gi ba tey ci lu jiitu ma nekk ci géej ga ak gannaaw bi ma ñëwee ci géej waaye ci lu jiitu te muy ëdduna ak ganaaw ëdduna te muy ëllëg yi mal xam yëpp yàlla may sàmmal boppam di ma muccal di ma musal ci lan min makaarihi dunya ci naqar naqaru ëdduna yi wala xirte ak alaxira wa min aafaatihima ak seenu gàkk-gàkk ñoom ñaar muy ëdduna ak alaxira wa akdaarihima ak seenu nax-nax ñoom ñaar te muy ëdduna ak ak seenu yàqu-yàqu ñoom ñaar te muy ëdduna ak alaxira wa moom yàlla muccal na ma min kulli makarin ma bàyyi ko ci bépp pexe wa quruurin ak waru wa stidraajin ak njayal wa musal na moom yàlla moom mucc min kulli kadrin ci bépp nëx-nëx fii daaree ni moo xam ceedu na la wala alaxira yàlla moo ma wuttul boppam muccalal ma boppam ci lu jiitu musalal ma boppam ci gannaaw ba tey ci lu jiitu ak ci lu ganaaw yëpp lu jiitu géej ga ak gannaaw géej ga yëpp ak adduna ak alaxira yëpp yàlla moom muccal ba noppi wuttul ma boppam musalal ma boppam ci naqar naqaru adduna ak alaxira ëndi lu muy naqari naqari naqari man suñ tubaab du ma ko jàmbat àlaaxira lépp lu fay xeeti naqar ci ay jafe-jafe ak coono man suñ tubaab suñu borom teggil na ma ko gàkk-gàkk adduna yi mucc naa ci te muy dal xol mere sa mbokkam jullit mere ku la deful dara kañaanee lu yàlla jox ab nit bañ ni tegoo ko fenn yu mel noonu mucc naa ci waaye seeni nëx-nëx muy nëx-nëxi ënnu kalaaxira mucc naa ci muy jafe-jafe yi gàllankoor nit ki ci bëgg-bëgg nit ñi yooyu al aqdaar lañ koy tuddee bëgg-bëgg nit ñi yi nekk ci adduna yëpp nee na mucc naa ci mucc naa ci yàqu-yàqu adduna yi lépp luy yàqu-yàqu ci adduna ak alaxira mucc naa ci mucc naa ci bépp pexe mu nuy pexal nit ci adduna mucc naa ci ak woru nekk ci dara wala di sant sama borom ci xéewal yu ma defal ba jàmm ñëpp di ko dégg ba léegi yow mal xiyama yàlla na ma la nga doon sant kat fa jaxal naa baal man soo dañ ko mujj def pënd rek du dara parce que yow Sëñ Tuubaa dugal nga ci ndistal dugal nga ci feebari xol yëpp dugal nga ci kon waru am na fa waaye akuk njayeel mucc naa ci njayeelum adduna mucc naa ci ëllëg yomal xam mucc naa ci waruk adduna naa ci waruk alaxira mucc naa ci waaye gépp nëx-nëxi adduna ko alaxira man Sëñ Tuubaa mucc naa ci waaw kon gis nga sant defe naa ne dara gënu koo kawe lii ak sant koo xam ne dana naqar naqaru adduna yi mucc naa ci yu alaxira mucc naa ci gàkk-gàkk adduna mucc naa ci àllaaxira mucc naa ci nax naxu adduna mucc naa ci gu àllaaxira mucc naa ci gépp gi yàqu-yàqu adduna ak àllaaxira mucc naa ci lépp luy yàq ci nag àllaaxira mucc naa ci gépp fexe ak wooru ak njayal ak gépp nax-nax bu nekk ci adduna ak àllaaxira mucc naa ci gis nga léegi nag mu commencé tudd yii gàllankoor nit ki ci adduna ak yi nga xam ne ñooy teg fitna ak yi musiba jaamab yàlla bi yàlla gërëm léegi day wane ne yàlla yeewal na ko yooyu yëpp tënkal na ko yooyu yëpp mu ne wax xëy na tënk na mooy jéng na moom yàlla jamia al mafasidi mboolem aji yàq wa jamia axdaay ak mboolem ay noon woosaadi ak ñi ma kañaane ñëpp waxulaati ak ñi ma bañ ñëpp mi ngi leen jéngee tënk leen ba mënuñ ci man dara ci sama dund bismihi ci kat nu turam bii nga xam ne almaani mooy aji tari ji tënk na leen an xayaat mu wëli samay dund fii daaree waaye nag ci adduna ak alaxira waaye nag bi mu xayyadihi ci ak tënkam moom yàlla ci ak jéngam la leen yàlla jéng ci man xanaa bu waxoon nit mu jéng la rek ñu ne waaw waaye yàlla jéngal la boppam kooku mënatoo ci nit ki dara yàlla moo jéng mboolem luy yàq ak mboolem noonu ak mboolem ku may kañaane man suñ tuba ak ku ma bañ mu ngi leen jéngee ci turam wan almaania turu yëmi la tur la woo xam ne bokk yi bépp musiba mu nar a wàcc lu mel ni tey yàlla dogaloon naa ah, suba kat fas yéenaa yéen a mbugal ab dëkk te yàlla moom lu mu wax dana ko def dëkk ba buñ bokkee ñaan ca ngoon nga yàlla mën naa foo mbugal ma xam am na ñoo xam ne dañuy wax ne dogalub yàlla buy wàcc dara mënu ko dara mënu koo delloo bi weddi leen laa yuradu qadru ila du'a a bi saa sam ne ne dara mëntu delloo dogal yàlla buy wàcc lurul ak ñaan kon loolu dañuy jàngalaat beneen taxi ne ndeke bu yonent bi doon wax mooy dëgg-dëgg loolu ñaan mooy ngàndaayu jullit bi xam nga de buñ ne la ngàndaay mooy lan mooy waa Badar waa Uhud waa Xunayni waa Tabuk ñi antoon yonent bi sallallahu daan xar ji lañ daan tikk ngàndaay ngàndaay googu moo doon seen kaaraange ñoom duñ daan ñaan de xam nga lu ñu daan ngàndaay googu moo moo leen aar waaye su ko defee ñun xeetu yonent bi nag waxuñu loolu ñu ñëw ci gannaawam yëpp nga xam ne xeex amatut tuur deret amatut lan la ñuy wax yéen su fekkee am na benn ngàndaay bu ngeen di ngàndaay yow mooy ñaan jaam bi fu mu jaaxalee rek dafa war a ñaan bu ñaanee nag na wakkiilu dellu ci yàlla xam ne yàlla nangal na ko kon dogalab yàlla bi wàcc nit ki bu ñaanee rek yàlla man naa foomu dogal ba su ko defee dogal bi xam ko muy nekkam asamaan si tim ñu di bëree di bëree di bëree ba péncam yàlla mu ngo kon waxëy de jami al mafasiri wa jami adaa yi wa xusaadi wa qulaati bismihil maani an ayaati fii daarin bi muqayyadi yàlla tënk na mboolem luy yàq ak mboolem ay noon ak mboolem ku may kañaane mboolem ku bañ mi ngi leen tënkee ci kàttanu turam wii di almaane nga xam ne fu ne ku bëggoon a ñëw yàlla mi tudd maane moo lay tere nga xam ne doo ñëw sëñ Tuubaa kat ak noon ak ku kañaane sëñ Tuubaa ak ku ko bañ yëpp boo doon ñëw fu ne yàlla moo lay xaajee bul ñëw ci sëñ Tuubaa ci turam wii di la ci gën yee mooy xaan xayaat yi nag mu wëli sama dund nga ne sama dund ñii mucc naa ci ñoom te daaree nag ci àdduna ak waaye nag bi muqayyadihi ci ak tënk moom yàlla yàlla moom ma leen tënkal jëngal ma li ñun ko ah, yàlla bu la defalee nii nag dëgg-dëgg kon war ngaa sant sant goo ne amul morom de mu ne ca laa jëm fa lahoo alhamdu hamda fa lahoo ñeel la ko moom dong dong alhamdu cantu xol moom yàlla moom kenn képp képp lay cantu xol moom borom bi subhanahu wa taala hamda jami al amidin hamda xeeti cantuk jami al amidin mboolem ña koy sant moom yàlla maa ngi ko koy sante ala wujudihi ci ak amam wa ala ijaadihi ak ci ak amalam wa ala juudi ak ci ak tabam ala ci tabam gi nga xam ne jaada ci la tabee li ñeel ma bii ca moom yàlla beneen asmati ci ak kaaraange ma maxam muqayid yi ànd ko ak tënkoom bii ca moom yàlla ilaa duxul yi rek sama tab bi aljana te aljana alati aljana ja xam ne wuxu waida dalis na ko moom yàlla almuduxolam boo leen weergal ñi yàlla nee na yàlla ñeel ko moom kottu kottu kottu kottu cant gu toll na mboolem ñiy sant yàlla ci seeni xol cant googu laa jox lépp sant ko yàlla borom bi subhaanahu wa taala cant gu njëkk maa ngi koy cant ci am gim am beneen cant gi mooy dama ko cant ci niixmatul ijaat xéewaluk am gim amal mbindeef yi beneen bi nag dama koy sante ci xéewaluk am gim am yàlla ma am na ba noppi mooy alwujudu mooy anafse mooy turu jëmmam ci ndax am gim am moo tax ñu koy kennal di ko jaam waaye maa ngi koy sant itam ci amal gim amal lépp moom borom bi subhaanahu wa waaye maa koy sant ba tey xeeti cant ak mboolem ñi koy cant ñëpp ci tabeem gi nga xam ne tab gim tab nga xam ne ci biir tabeem googu ci la ma mayee ma dugg ci biir sécurité am nga xam ne ku ci dugg dootoo amate lenn looy jaaxle wala ngay jàq waaye ci la ma mayee ba tey ma tënku ci moom nga xam ne fu ne Sëñ Tuubaa mëntu génn yàlla ah soo doon misaal yàlla néeg la da naan Sëñ Tuubaa moo nekk ci biit. yàllaa ko ci tënk te neen loolu ba ke rek sama tàbbi aljana aljana ji nga xam ne yàllaa ko dig ñi ragal yàlla ñëpp aljana daal fu ne caabeem ja mooy ragal yàlla boo bëgg jot ci caabi ja yàlla lu mën a nekk ci biir aljana itam ci xeeti jongoma jigéenu ruur ay la koy may itam mooy ragal yàlla rek topp digli bàyyi tër moo tax na fa loolu ñeen ko alhamdu cantu xol xam nda xeetu cantuk jamii al amilin mboolem way cant ñi ala wujudi ci laa koy cant moom yàlla ci ak amam wa ala ijaadi ak ci ak amalam wa ala ak ci ak tamam ñett yii daal ci laa koy sant am gim am ak amal gim amal lépp ak ci tab gim tab àlla si te mooy tab gi nga xam ne jaare ci la tabee li ñeel na bii ca moom yàlla bi la azmati ci li nga xam ne mooy isma isma mooy loo xam ne ku ko am mucc gépp lor fooy nit mënatuñ ci yow dara loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent yi ñoo koy am te suñu na ko moom Sëñ Tuubaa waaye ba tey ma muqayyadihi ànd ko ak tënkoom bii ci moom yàlla xam ne fu ne Sëñ Tuubaa suñu borom da koo def mu dugg ci biit yàlla te mënatu koo génn loolu kon da koy sante yàlla mu ne ilaa duxuul yi dama koy sant ba a sama tàbbi aljana aljana alati aljana ja xam ne wuxee de dëlis ko moom yàlla almatuqun way ragal ñu yàlla mu ne bisimilahi sot na ma sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur bay xéewalaa kon bépp mi néef ci àdduna arrahim buur bay ajaram ko soob ci àlaxira léegi nag xam nga yee moom moo doon safaane yi nga xam ne yàlla da ko tënkal léegi nag muy wax nag yi ko yàlla jox xam nga fii dalaa jàngaloon yi ko yàlla defal yooyu moom tënkal na ko ba nëppi mboolem ñi ko wala ñu ko bañee wala ay noonam ñëpp yàlla jéng na leen ci benn jéng te dootuñ mën a lor sëñ Tuubaa léegi nag mu wax li ko yàlla defal li ko yàlla xéwalee mu ne àll si yàlla mooy ki nga xam ne xàllaqan yi moom ma bind man sëñ muy dëgg te ma nangu ko a saqan yi te mu wërsëgal ma muy dëgg tama ma nangu ko wawa faqan yi taw mu taw féexal ma defal ma taw feex wa at laqan yi te mu boyal ma ilal jënati ba ke rek may tàbbi aljana àll aljana ja xam ne waaye da dëxliis ma ko almutaqoon way ragal xam nga fee da doon bismil maaniam waaye fii nag mu comme lu ko yàlla defal la mu ne bismi ci barke prom yi nga xam ne albasiti mooy aji tàllal ji waaye wabi mutlaqi ak ci mut la xam nga al mubaaraki ga daguñ barkeel ci la defal lii ñeel ma fii ca moom ca biiram nee maa ngi sant yàlla mi ma bind yàlla ma bind mooy ki may wërsëgalee amul kenn ku may wërsëgal wa maa min daabatin fil ardi ila ala llahi risquha wa yaqlabu mustaqra wa mustadaa kullun fi kitaabin mubiin walaahu yaqbiru wa yabsutu yàlla mooy kii ngëb wërsëg waaye mooy kii tàllal ku ko neex yàlla ma bind mooy ki may wërsëgal mooy ki ma defal tawféex tawféex mooy koo xam ne loo bëgg bu fekk si la tawféex foofu ne bu ma ko doon misaalal mooy lu mat a ñaan waxam la naa rusta wa tawféex yàlla waaye njubu koy maye njub mooy maye tawféex koo dégg ne am na tawféex rek maanaam seedal ko am njubam mooy loo xam ne tey loo ma a bëgg boo soloon sa dàll di génn sa kër da ngay dajeeg moom ci buntu kër loolu mooy tawfiq dëgg-dëgg raafaxtu fi qimati tawfiqu xaaliqina al mulhimil xayri maahil jahli wal alabi sëñ Tuubaa ne damaa àndanteeg liggéey may liggéeyal yonent bi salaay salaam tawfiquk yàlla la àndanteeg yàlla mi far man lépp luy réer ak métti te di ma inkiwal kon moo tax mu ne yàlla mooy ki may wërsëgal waaye mooy ki ma tawfiqal mooy ki may boyal boyal mooy koo xam ne fu la neex dem amul benn espace bi lay tënk fu neex sëñ Tuubaa dem yaa maalikal mulki lii wasanta doona joxoon fil mulkul malakut dax raya laaw mulku yéeg malakut yi malakut mooy lu kenn gisut mulku mooy diggante asmaan ak suuf malakut nag mooy liy nëbbu te xam ne nit ñi gisuñ ko nee yàlla moomu bind mooy ki wërsëgal mooy ki may mooy ki boyal ba kerek may tabi aljana aljana ja xam ne moom yàlla moo ko dig ñi ragal yàlla ñëpp waaye nag moo kii koy defal ci barkeeb turam wii ko neex waaye ci ak mut nga yàlla mut lax la mooy koo xam ne amul benn barab bu muy tënku mi ngi gis lépp loolu la defal sëñ tubaa fu ne sëñ tubaa mooy jëmm joo xam ne fu ne même bu nekkoon si ci tubaa la mi ngi gis lu xew ko la bu nekkoon Touba mu ngi gis mbaayom ba moom fu mën a nekk rek day mel ne amul espace adduna yëpp mi ngi leen di gis loolu ko yàlla defal moo ko waxal boppam bismihil baasi tuba bi mut la xel mubaaraki lii fii nee na ci barke turam yi nga xam ne mooy albasiri mooy aji tàllal ku ko naan te yàllaa ko tàllal lii mu nettali léegi yàllaa ko def itam wa bi mutlax yi ak ci mutlaxam ni yàlla doonee mutlax nga xam ne amul espace amul lu koy tënk amul temps amul waxtu noonu la mel ci sëñ Tuubaa al mubaaraki ga guñ barkeel lii ñeel fii ci ma yàlla ma defal ni mu nekkee mutlax ma doon mutlax fu ma mën nekk man a Ahmadu amul benn espace bu may tënk damay jàkkaarloo lépp tabaarkalla loolu kon suñu borom moo ko defal ba tey mu ne allahuma yaa maaniyoom yow saa borom allahuma yow suñu borom maa ngi lay ñaan yaa maani xo yow muy aji teere ji bépp musiba mu nar a wàcc nga xam ne léegi léeg yaa koy galgal mu delluwaat dootul ñëwati wàcc ci kaw jàmbi yaa baasitu yow mi aji tàllal ku la neex yaa tudd maanixo gis nga ñaari turam yi ci lay baagante léegi ndax maanixo moo ko tënkal noon waaye baasitu moo ci koy jox xéwal yi moo tax ñaar yëpp ci lay boole di sant yàlla ci jëmmi xolom ndax cant yëpp gi ci féete kaw mooy cantu xol wa maa bikum min nixmatin fa minallah yàlla bu la defalee dara jur mën na caa bokk sëriñ bi mën na caa bokk waaye nag na nga xam ne yàlla la de sabab bi na sabab bi mën naa juddoo ci ñooñu waaye xamal ne yàlla rek la yëg yëg gi nga yëg sa xol na rek ci yàlla rek la bay ko bay ko ci kenn googu cant moo gën a am doole ci cant yi ma bikum min ni'matin fa minallah xéewal gu mën a nekk ci yow rek xamal ne du kenn ku dul yàlla moo tax yaa baasitu yow miy aji tàllal ji yow mii maa ñëwaat di baasitu daal laka ñeenal yow kott kott alhamdu cant xol yii may cant am dan cant goo xam ne xaalidan aji biir la maxa xuloo di ko ànd koog sa biir yàlla ñeel na la yow dongo dongo kott keneen xajut keneen bokkut cant goo xam ne day biil xam nga yàlla moom dafiy biil dafiy sax du fi mos a béy ko nag nee na fii ak yàlla ngi sax nag man Ahmadu maa ngi koy cant samay xol kooku goo xam cant gi du muy toll la taala hamdu amdan xaalidan maxa xuloo di ko waaye wala ka ñeenal yow kott kott alhamdu cant. xam dan cant koo xam ne laa muntaha déetub yemukaay loxoo di ko ñeel moom cant ko doone xel mi ka ci lu dul sax xam-xam xam-xamu yàlla rek ko xam te yàlla nee man lépp laa xam wa an na laa qad ahaata bi kulli ku yàlla nag xamoo dara alimtu shay'an wa xaabara an ka asiyaaw da ngay xam tuuti lu ci des réer la waaw noonu la sëñ Tuubaa nee na ko ñeel na yow kottu kottu sama cantu kol cant goo xam ne du am yemukaay mu ngi am tàmbali nag waaye nag du am yemukaay waaye cant kenn du ko xam lu sa xam-xam ndax yaa xam lépp kon cant mooy koo xam ne kenn xamul ku dul yàlla rek moo tax mu ne ko laa muntahaa lahu doona xilmi wala ka ñeenal ba tey alhamdu cantu xol xam daan cantu goxam ne laa muntahaa déetug yemukaay lu di ko ñeel doona masiatika lu dul sa coobare doona almika doona masiatika mu ne ko yow yàlla ñeenal yow dongu sama cantu xol te cant la goo xam ne du am fenn fu muy yemukaay du am yemukaay moom cant lu dul sa coobare maanaam yow rek yaa koy xam sa coobare waaw coow rek moom yàlla coobaram lay jëfee bu ko neexee saa borom dogal lu ko neex ci sëñ Tuubaa mu cante ko noonu moo doon la ko ñeen la sama cantu xol cant goo xam ne du am yemukaay lu sëb coobare ay wala ko ñeen la ala du cantu xol am dan cant goo xam ne laa jësaa a diitu pay li xaa ili ñeel aji waxam moom cant ga ilaa ridaaka lurul sa ngërëm mun ko ñeenal yow côté yow yàlla cantu xol cant goo xam ne maanaam ki def cant gi te mooy man sëñ Tuubaa maanaam bëgguma nga paye ma ci cant ga dara lu dul am am am sa kon xam nga ne ngërëmal yàlla jafe na de nee na cant gi may cant yàlla bëggul ci lenn lu dul am ngërëmal yàlla te mu ngërëmal yàlla mi dem na ba ngërëmal yàlla moo jébbalu Sëñ Tuubaa aljana ñëw jébbalu Sëñ Tuubaa xam ne tey fu ne bëggatul aljana jaamootul yàlla ngir aljana waaye day jaamu yàlla ngir bëgg yàlla dafa yegg ci nga xam ne yuri doon a wàccaxu dañuy jaamu yàlla ngir jëmmam ji rek waaye yàlla boo xëyoon ñoom naxoo mbaay aljana amul safara amul moom day jaamu yàlla rek du ko bàyyi am na ñoo xam ne tey fu tax ñuy jaamu yàlla mooy ragal safara bëgg a tàbbi aljana waaye sëñ Tuubaa bu yàlla xëyoon ne tey aljana amut safara amut du tey sëñ Tuubaa moom da koy jàmm ngir lan yuyu doon wacaaw fu ne ñii ñëpp dem na ba am leen ñoom nag ñoo mujj nag ñëw jébbalu sëñ Tuubaa ndax moom fu ne day maye aljana di may ngërmal yàlla mu ko moo tamal ñeen na la cantu xol cant goo xam ne diitu pay ñeel aji wax moom cant gi lu du sa ngërëm waaye wa ñeel na la ak cant inda tarfati kulli aynin fa xafa xippi bépp bët wa si ak nooyu kulli nafasin bépp bakkan ala wujudika ala wujudika ci sag am wa ala ijaadika ak ci sag amal wa juudika ak ci sag tab ala ci sag tab gi nga xam ne jutta ci nga tabe lii ñeel ma bi ci yow wa bi mutlaxika ak ci sag mutlax wa bi muqayyadika ànd ko ci sa tënk gi nga ma tënk bi asmati ci sa biit xesma te mooy kaaraange mu ne yàlla ñeel na la waaye kan moo xam mbindeef yi li ñuy nooy bis bu ne ak li ñuy xulli seen bëri di xëfa xëppi kenn xamul ko ñaata mili milliards ñoo nekk ci réew mi ci ay mbindeef ah mu ne ko nag fii loolu mu ngi am nit kaa ngi xëf di xëppi di nooy te kenn xamul kenn ku ne rek li ngay nooy tey ak li ngay xëfa xëppi kenn xamul nu mu toll waaye nag nga boole mbindeef yëpp la wax nag nee na cant gu toll noonu jox na la ko allahu akbar lu tax mu ne ko ci sa am gi nga am moo tax ak amal gi nga amal lépp moo tax xeeti cant yépp jël naa ko jox la ko ak ci sa tab gi nga xam ne ci nga ma tabee dugal ma ci sa biir man sëñ Tuubaa nga may ma léegi ma dëkk ci sa biir waaye nga defal ma sa mut la nga xam aw ma espace amul aw ma lu may tënk waaye nag nga dal di may jéng su fekkoon na maanaam kaaraangeeg yàlla ab néeg la sëñ Tuubaa ne ne sunu borom daf ma caa jéng tëj ma ca waaw ku yàlla tëj ci ak néegam nag kanaa danga nga war a mucc ci àdduna ak àlaaxira gépp gu làmboo aduna làmboo na ko ñooñ safara làmboo nañ ko adduna làmboo na ko da ci mucc léegi ne daan ko nekk li ci ci kanam moo tax ne ñeel na la yow yàlla fa petu bépp bët feeg nit a ngi xëf di xippi rek ñeel na la ak cant feeg nit a ngi nooy di bàyyi rek ñeel ak cant ci lan ci am gi nga am ak amal gi nga amal ak tab gi nga xam ne ci biir tab googu ci nga ma mayee ma bokk sa biir wa ala joodika allasi juttalii bihi waaye nag ñeel na la ba tey ak cant wa bi mutlaxika ak ci sa mut lax nga ma defal yow yàlla nga xam ne yàlla ko mut mutlaxal waaye nag wa bi muqayadika ànd ko ci sa jéng gi nga ma jéng bi la asmati ci sa biir kaaraange ba mu ko nag mu mucc min darari naari dunya ci lori safaraw aduna wa min darari ahliha ak ci lori ñoñam ñi fii dunya fii ci bi ko yàlla jéngee ci néegu kaaraangeem nga xam ne kon wa bi muqayadika bi la asmati su fekkoon yàlla maanaam kaaraange am néeg la da caa suñ ci waa fu ne kenn mënatu koo lor waaw ku nekk ci biir kaaraange gi yàlla kooku lay mën a lor kenn déedéet amul kenn ku yàlla sàkk ko mën naa jël ay lor jëlu ko lor déedéet kenn mënu ko wa bi muqayyadika bil asmati ñeenal ak cant wa bi muqayyadika ci sa jéng gi nga ma jéng bil asmati ci sa biit néeg ak kaaraange ma mucc min darari naari dunya ci lori soxraw aduna yi wa min darari ahliha ci lori ñoñom ñi fii dunya fii ci aduna léegi mucc naa ci lori aduna aduna ci boppam rek daa am lor waaye nag ak ñoñam adduna ñi fi nekk muy ci ay mbindeef ñëpp léegi mucc naa ci parce que lan wa bi muqayyadika bil xismati ah kii de war na sant yàlla ku mucc ci lor yi adduna ah mucc ci lor yi ñooñu adduna mbañante yeeg xoloo yeeg xeex yeeg sew sewaan yëpp suñ tubaab mucc na ci safara adduna safara adduna buñ ko waxee mooy mbañante yi safara nag buñ ko waxee mooy safara suñuy toggee reer ak ndékki ak añ waaye nag suñ tubaab bu waxee safara adduna mooy safara yii nga xam ne mooy nekk ci xol safara woowu moo gën a bon sax safara wuy tàkk mooy safara wuy tàkk te du fay xam nga safara yi moom boo toggee ba pare sax moom mën naa fay moom waaye safara yi nekk ci xol ah yooyu du fay moo tax min darri naari dunya waaye wa min darri ahliya li mucc li gën a jafe rek mooy mucc ci lori adduna waaye nag gën a fi mucc ci ñooñu adduna seen lor sax yow nga mucc muccaale ci waaye nee na ba tey wa bi muqayyadika bil ismati goog yàlla def ma tënk ma ci biir néeg ak kaaraangeem nee na ba tey wa min ruxyati ci laa muccee ci di gis wa min ruxyati naari laaxirati ci laa muccee di gis safaraw alaaxira waaye nag wa ci laa muccee ba tey di gis min ruxyati ahliha di gis ñooñ ñooñ safara fii laaxira ci biir alaaxira nga war kon fi ne ni muccee ci loru adduna safaraw adduna mucc ci ñooñ adduna noonu la mucc ci safaraw alaaxira ak ca ña tàbbi ba noppi xam nga def nit mën naa tàbbi aljana lu lu bëri lu mat bàyyi xel la mën naa tàbbi aljana waaye du tee dana séen ñi jëm safara wala danañ ko wan léeg-léeg ay mbokkam am bokkoon bu tàbbi safara danañ ko woon mu koy gis di gis safara waaye tu am dul gis safara da dul gis ñi dëkk safara ngir lan wa bi muqayyadika bil asmati bokk yi gi ko yàlla defal moo tax ma ne wa bi muqayyadika góog nga defal ma mooy tënk ma ci sa biit xes ma ma mucc ci gépp gu lor dina ci laa muccee wa min ruxyati ci gis naari laa xariti safara alaxira waaye wa min ruxyati ahliya waaye ci laa muccee di gis ñooñ safara ña nekk ci biir safara tàbbi fa fii laaxira ci biir alaxira lépp mucc na ci kon bi mu xëyee di ko bi neexmati moo ko jural lii yëpp mu mucc ci darari naari dunya mucc ci wa min darari axliha fi dunya mucc ci wa min ruxyati naari laaxirati mucc ci wa min ruxyati axliha fi laaxirati te yow mii ab taalibeem nag fu sëñ Tuubaa teg tànkam nii boo fa tegee sa tànk na nga wóor ne moom moom dala ca boole wàll du moom kenn rek de déedéet yaa man yow yàlla yow yaay ki nga xam ne taqabala da nga nangu xaasil yi xaraf min naasimiha mu bàyyi ko ci aji wayam min mu bàyyi ko ci ramadaani dam sa si dam sa sam ga mu ne yàlla araf yii may bëgg wax si muy geneen xasida lay dugg ndax lii yëpp da doon sant yàlla di wax lu ko yàlla defal xasida goo xam ne tawhid lay doon mu ne yàlla yow yaay ki nga xam ne xasida gii may bëgg a jublu si di ko bindi man sëñ Tuubaa bindagul ko soxna ne ko yaa koy nangu <laughs> sëñ Tuubaa day commande day dagaan dagaan waaye du ñaan de yow yaay ki nga xam ne da nangu yii araf mu bàyyi ko ci aji wéyam te mooy ramadaan dam sa si weeru ramadaan wi ko fekkoon ci 1344 kon day mel ni sëñ Tuubaa atum wam sa sin la wàcc liggéey ñibi Tuubaa kon day mel ni ñaari at moo ci dox xam sa ak wam sa sin dam sa mooy mille trois cent quarante quatre ci gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ñaari at rek moo tax sëñ Tuubaa wuy ji borom subhaanahu wa kon ci xasida yi njëkk yi mujjee bindi ci la bokk ci koor yi ko mujjee fekk ci kaw suuf ci la bokk mu ne kon araf yii yow yaay ki na da ko nangu dan nga ko nangul ki nga xam ne moo ko taarif te mooy man sëñ tubaa yow yàlla commencé di wax xaraf yi benn par benn malakani lasi lahul wujudu maa qaadali minhu taxaala aljuudu malakani moom loo na ma alasi yàlla mi nga xam ne loxoo ñeel na ko al wujudu ak am moom loo ma gis nga maa wax nag moo tax fu ne maawu suñ tubaa lu ci xajut amut fu ne maa gi nga ci diggee lu ne may gu kenn amut mën naa doon ma ak goo xam ne kenn dootu ko am ma naa doon maa ya alquran waxee na maa dal la saahibakum wa maa xawaa seen àndandoor bii di sallallahu alayhi wa sallam mos tu réer du mos a madal kabiru liwal kabiru maa laa yëbbóor gis nga maa googu lu ci xajul xamul yàlla moom loolu ma loo xam ne du ràpp mukk du alko maa laa yërimu ci lisaan suru ba tey maa laa yërimu baax na ci waaye maa googu itam lu ne xaj na ci dafa am maa yoo xam ne lu ne xaj na lu mel ni alquran wa yaxluqu maa laa taxlamuuna ak bal kasaboo bi maa lam yuhitoo ak wa maa min daabatin ñetti maa yooyu lu ne xaj na ci moo tax malaka ni moom loolu ma alisi yàlla mi nga xam loxo ñëw ko alwujudu am yàlla loolu mooy turu nasiya turu jëmmam ja mooy ku am la waaye nag moom bi amee kenn da koo amalut nag moom yàlla moo moom loo maa loo xam ne la moom moom loo noonu maa mooy loo xam ne xaada moo ma wamata lii ñal mi bàyyi ko ci moom taxala mu muy aji kawe al juudu tabam ka xam fu ni yàlla day jëflante ci moom ak ci ci sifaam wii muy meloom wii di tab ndax wa soxtu bi rabbil arsil jóodi wala yàlla muy jóodu rek ci moom rek lay dëgërlu sifa la ci sifa yi yàlla yi melo yi ndax yóori ñoo doon wax ne yàlla dafa nay mel ni ku naan yàlla daal loxo bi dafa dagg wa qaalat al yahuudu yadullahi maxluulatun qullat aydihim wa lu'inu bimaa qaaluu yàlla na bal yadahu mabsuutatan yàlla de ñaari loxo mi lay tàllal rek di ko xëpp yunfiqu kayfa yasaaw kayfa yasaaw noonu nag suñ tubaa ci la bokk yalla ne damay dundalee damay dundalee nu ma neex waaw nu neex suñ tubaa lay jëflante moom ci wàllu xéwal moo tax ne yàlla ku am la moo moom la loo xam ne moo may wommatal mu bàyyi ko ci moom moom mi aji kawe ay tabam jamono ji ne xéwal yaa ngi sotte ko di ñëw ci moom rek coy nafa si lahul baqaau wal xidam mahal muxaalafati han xomril adam léegi nag mu ñëw ci asalbiya mu toll ci juróomi tur mu ne nafaa daq na alisi yàlla mi nga xam ne lu ko ñeena ko albaqaawu des wal xidami ak jiitu mahal muxaalafati ànd ko wuuteeg lépp lu mu sàkk moo dàq an xomri moo sama dund al ak ñàkk yàlla mi albaqaaw ak alxidam albaqaaw mooy koo xam ne moom rek moo fi des nag te sëñ Tuubaa nee na baqaaw moom bi fi des moo mu dugal ci biir desam gi albaqaaw mooy koo xam ne ñëpp danañ fi dee ko ba moom kooku mooy borom bi subhaanahu wa taala mooy koo xam ne jiitu na waaye jiitu ne da nga naan ah moo fi jiitu moom ana lan moo ko fi njëkkoon yàlla mooy ku dara njëkkul ko fi amul lenn amul fenn fu mu tàmbalee te du am fu muy yem nag. almuxaalafa mooy koo xam ne dafa wuuteeg lépp lu sakk xam nga tey koo jël ba ci ne doomi sëñ Tuubaa sax dañ naan la nangam de ak ku niroog sëñ Tuubaa moo niroog ak bàyyam ko jël di ci nit ñi rek. dañ nañ la ak niru baayam te muy dëgg te ndax nit ku ne doom junne bu fekkee baayam tegee na fam fam fam bëgg a tegee ah fekkee baayam tegee na ci yoon day mbibét niru baay ja niru ko ci jëmm niru ko ci doxalin ndax doomi sëñ Tuubaa yëpp lañ doon mbibét niru seen baay waaw gis nga sëñ Abdullahi borom dër bi ku niroon sëñ Tuubaa la ci gépp côté ci waxin ci doxin ci solin ci lépp gis nga waaye yàlla nag al muxaalafati mooy koo xam ne moom niruwut ak kenn moom koo xam dëgg-dëgg kooku mooy al wax daal yi mooy ku wéet lay sa kamis lay say ut amul dara dara lu nit moom sëñ Tuubaa bañ na ko sax ba ne luy toq saq rek sànneel xamal ni rootoog yàlla bi bali yàqutur wax wal mufradul alam yàlla mufrad la alam la moo tax kon yàlla mooy albaqaaw ak xidam ak almuxaalafa ñetti tur yii ci asalbiya ci lañ bokk moom da nga koy gëm rek da nga koy saxal ca da nga koy gëm rek asalbiya mooy tekki dàq waaye moom day aaju rek nga gëm ko moo tax nafaa dàq na alis yàlla mi nga xam ne lofoo ñeen na ko albaqaawu des wal xidam ak jiitu lépp lu mu sàkk moo dàq an xomri mu wëli dund alxadam ak ñàkk xaddam buñ ko waxee ñàkk ñaar lay sa xel di daj parce que ñàkk buñ ko xee mooy ñàkk alal lu mel ni ñàkk alal nii bu dee ci mu tasawuf ne moom mooy ñàkk yàlla ak yu mel noonu waaye buñ ko waxee ñun nii mooy ñàkk lu mel ni xaalis geneen ñàkk gi nga xam nag mooy yàlla mi nga xam ne moo la jëlee ci xaddam indi la caam xam nga nit ñëpp ci xaddam la ñoon yàlla sos leen ñi nekk toqant ma mënuyu ba kay ñi nekk lupp nekk ab suux mat sëkk yàlla wodd ci la muy ak yax fa xalax naa la alaxata mun xotan fa xalax naa mun xotan xisaaman fa kasam daan xisaaman lax man su ma an sax naa xaqan aqara fa tabaaraka laa usnul kon nit ñëpp ku judd ku ne da fekkoon nga ñàkk waaye nag yàlla moo la amal nga nga ñëw ci àdduna waaye sëñ Tuubaa nee yàlla moo tax dafa mel ni moom moxtu doon xaddam ndax fu ne sëñ la la xewoon bu njëkk xam na ko li teew xam na ko luy ñëw xam na ko daa mel ni moom daf fee saxoon rek nekk fekk yàlla waaw boo déggee ku ñuy sàkku ji yonent bi saa sax moo demoon sàkku ji ka ñuy sàkk ji kooku am na fu mu nekkoon de raama rasulullahi min ilahi kaw nii xadiima xoowu abdullahi kooku am na fu nekkoon de ku ñuy sàkku bokkut ak koo xam ne nii tabaaraka la xadam la de ah ku ñuy sàkku daa amoon loolu loolu moom loolu moom wax la ku ñuy sàkku dem ba ci yàlla di sàkku ji te yónent bi saa boobu sëñ Tuubaa juddoogut ko amoon la de doonut xadam de kon sëñ Tuubaa dundam lépp mosta ñàkk waaye boo jàngee ci yeneen xasida mu lay wax ne yàlla moo ma jëlee ci ñàkk indi ma ci am lépp ay étape la yu muy sant borom subhanahu wa taala ngir ñoom dañoo baaxoo lu nuy sant yàlla rek dañuy xeeb lu nekk ci gannaaw li leen yàlla defal lam leen defal tey lañ koy gën a sant lam leen defal démb mbokk yàlla nu yàlla defal dégg ak topp defal nu tawfiq ak tey si